ay ndaw Scat Urbam ak ñeneen ñu dëkkee ci goxu Grand Yoff ñoo daldi ëmb bile mouvement fas yéene taxaw ci wàllu social El Hadj Samba Ndiaye di président Vision 2S di ñu xamal li sabab bii la bés. ku wax Sénégal wax wàllu social et dañoo nekk ci weer woo xam ne ne weeru social la ñu koy wax Ramadan mu nekk mois boo xam ne ku bëgg def social rek vraiment répondre na ko loolu moo tax organiser benn journée de distribution des denrées alimentaires ak euh, distribution ndogu. ci ay cotisation bu ñu amal ci diggante membre yi waaye ak jàppandal yenn kilifa yi di fi yeewoo lañu ñu daal di dajale fonds ngir mën a amal bés bii ñun suñu biir ñun nekk la nga am danga ko ënni yàlla cërale ñu ay notable yoo xam ne ne tey jii nii nekk fii ci Grand Yoff indi nañ seen participation boole ko ci ak lu ñu yoroon ñi fas yéene joxe ak séddale ndogu jagleel ko ndongo daara yi ak ñi ko yelloo ñu mel ni daara yi résidence yi nga xam ne ay étudiants ñoo ciy nekk jógee seen dëkk ñëw fii di jàng si ñi nga xam ne tey jii nii nekk nañ di di dund dund yoo xam ne ne peut-être ne ne gënul leen de mënuñu dem di ko wax fàttali ak ñett ci weer wi ñu ne la vision 2S di amal bi la te fas yéene ko amal at bu nekk